سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي résidence Khadimou Rassoul tur wi siiw lool ñu miin ko it ci yeneeni tur muy kër Serigne Touba gi ci jumaa ji wala kër mag moom ràññeeku lool ci dëkk bu sell bi di Touba ci kaas bi nga xam ni moo nekkee ci diggu kër gi di bërëb bu ñu liggéey ci espace bu yaatu ñu xayma ko ci lu toll ci 15000 mètres carrés am ay bâtiment doon ay dalluwaay ci ay gan nekkit bërëb boo xam ni xalifa général de mourides dina fiy faral di nekk ñu fiy dundal ak waajal événement yu bëree bëri ci yoonu murit résidence xaadimu rasul kan moo ko taxawal ñan ñoo liggéey bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir kër gi ak naka lañu koy jariñoo ak saytu gi dal leen ak jàmm ci résidence Khadimou Rassoul البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أوزارا فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي برزقه هدى ومالا وكل من صدمني أو لاما kër Serigne gi ñu naan résidence Khadimou Rassoul kër Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke moom Serigne la woon. nag nit ñi nga xamee ne doomi sëriñtubaa Touba dañoo amoon kër ci li wër jumaa ji. noonu la ko cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikhul Khadim amee woon muy kër gi bi nga xamee ne nag sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifab sëriñ Touba toog na fi te gisit ne e, sëriñ Touba mënta ñàkk kër wala ay kër ci dëkk bi wala ci dëkk yi wala ci réew yi. ci la cheikh Abdul Ahad Mbacké nekkoon troisième xalif général des Mourides. sàkko ci sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Bassirou ñu gënoon koo miin ci Serigne Moustapha Bassirou ngir mu jox ko kër gi mu mën koo def kër Serigne Touba. mu amee woon ci 1974 jàpp 75. bu loolu amee mu wax tàmm woon ci pàkk bi pàkk bi la ñu tàmmoon la tax mu tàmm ko ci nag moo ko ci xam xam naa ñu liñ ci man a xam ci saayir xëy na mooy fi pàkk bi taxawee ñaari dëkk boo dem mm, borom dëkk ba mooy féete fenti ma fi féete fi mu féete jumaay Touba ji xëy na loolu la ko jublu loolu nag moom moo xam baatin ba la ci jublu fekk na kër gi it kër sëriñ Bachirum Xaadimu Rasul la mosoon a doon naka jekk moo ko dëkke woon naka jekk moo ko astafurlah moo ko moomoon euh, waaye yàlla dogal na mosu cee dëkk euh, kon mu nekkoon ci loxo yi njabootu sëñ Bachir loolu taxoon mu waxtaan ci sëñ Moussa Bachir xamal ko ne kër gi la tàmmu ci loolu. gannaaw ba mu xamee it ne ci lu leer ne bu ko ko laajee it du am dara lum mu tontu lu jëfe ndigal li ni nga ko bëggee Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir itam daal di jëfe ndigal li jox sëriñ Abdoul Ahad kër gi fekk na na kër gi bi bi sëñ Bachir jógee nee nañ leen mosu woon a dëkk moo ko moom la mosu cee dëkk ak waa këram ak yooyu daan nañ gannaawam dañ koo miraasoon ay doomam yu lenn ci ay doomam yu jigéen ñoom moomoon fii ñoom lañ ko séddale Euh, bi mu euh, biralee donc bëggam ci loolu la ko xamal sëñ Moussa Bassirou sëñ Moussa Bassirou gannaaw bu mu ca juboo ak jigéenam yooyee ñu ànd nangul ko loole jox ko addiya ngir mu def ko kër Serigne Touba tey jii mu ne jamono dana ñëw joo xam nit dana fi nekkal Sëriñ Tuubaa te su boobaa du am kër ci pénc bi su boobaa muy këram te loolu Sëriñ Abdou Lahad doxoon ak na tey defe naa Sëriñ Muntaxaa mii nga xam ne mooy Xaadimu Rasuul amul kër ci pénc bi waaye am na kër ci pénc bi ndax kër Sëriñ Tuubaa gi këram ndax moo fi Sëriñ Tuubaa tey Cheikh Abdou Lahad Mbacké jot ci kër gi def ko kër Sëriñ Tuubaa door liggéey bi taxawal fi ay bâtiment yoo xam ni da koo sant ñenn ci jëwriñu yoon wi tàmbalee ko ci Sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ni moo ko jox kër gi ndax dafa woo sëriñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moom la laaj kër gi ba mu jox ko ko ci turu njabootuk sëriñ Bassirou gépp ak njabootuk Daarul Minan gépp mu sant ko fi bâtiment boo xam ne euh, bâtiment juróomi néeg la ak ñaa saal bu mag ak saal bu ndaw ak euh, ay couloir yoo xam ne ak foo xam ne daal nit mën sa faa waaje yàlla def na it nag euh, ba mu ko defee kër Serigne Touba Serigne Moustapha ba la fi njëkk moo ko fi def lu fi njëkk luñ ci mën a ñoom moo ko fi def doonte ñeneen def nañ ci lu bëree bari waaye la jiitu ba ci bâtiment bii ci sama ndeyjoor ni moo ko fi def ak yeneen lañ li ko mën a jëriñoo daal moo fi defoon. soo duggee ci résidence Xaadim Rasoul bi jaaree ci bunt bu mag bi batiment bi nga xam ne moo féetee sa ndeyjoor langue ak kaas bi moom lañ naan batiment bâtiment Serigne ba Bassirou di bâtiment boo xam ne am na ay salle ak i néeg bëri na ay événement yoo xam ne ci yoonu murit ak i ndaje fii lañ koy amalee. batiment bi mi ngi eh, ni ñu la ko mën a waxee ci ni mu tëddee mu ngi mu ngi tëddee ne maanaam daanaka lu baree baree bari ci yoon yi danay amee ci bâtiment bi. loolu mën nañ koo tàmbalee ci maanaam koor gi njàngum koor gi ah, njàngum koor gi Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di rakk ci Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir bi mu ñëwee ci kër gi dafa tànn bâtiment bi muy salle bu mag bii ñuy defee waxtaan wi di fi amale njàngum koor gi njàngum koor gi mu fiy amale ànd kook Hizbut xeex ñoom fii la ñuy aménagé ñëw nekk fi diiru weeru koor gi saal bii ñuy nekk di wax fi la sëriñ bi di defal lool diiru weeru koor gépp bu rëccee lool it ndaje yu bari ci yoonu murit danañ koy amale fii lu ko mel ni que ay réunion yu mag ak ay ay ndaje yu mag ba ci président sëriñ bi recevoir na ko ci saal bi ay yoonu yoon bu weesoo loolu it saal bi am na beneen saal boo xëyee mi ngi ci suñu gannaaw xam naa di ngeen ko jël ci image yi muy ñaari saal yooyu saal bu mag bi ak bu ndaw bi nekk ci suñu gannaaw amaat ñeenti néeg ak benn saal bu ndaw saal bu ndaw bi sëriñ Serigne Moussa Mbacke Naël fi lay féete ci koor gi moom it mooy bi féete ci suñu côté càmmooñ liggéey bi daal di muy doxee fii ci bâtiment bi mooy ñun dañuy fee teg ngir ñu koy setal di ko sellal jamono bu nekk ba waxtu wu nit ñëwee man fee fekk ak cat ak ak cell loola nag ñun. sunug tarxiya la sunu sëriñ ñu digal nañu dem leen ngeen nekk ca bâtiment ba muy seenug tarxiya laxasaayu nag di setal bâtiment bi ci jamono bu nekk ak waxtu wu nekk waaye ñeenti néeg yi bu ci nekk am na salle de ci biir sa saal yi it mag bii am na salle de bain saal bu bi am na salle de ci ni ko suñu sëriñ liggéeye woon daf ko waajaloon ci ba fu ci nit nekk mën na bañ a gisanteek kaneen ka nekk feneen kenn ku ne néeg ba nga nekk la fa war a nekk lépp nekk na fa saal yi it noonu di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdul Qadir fii lay nekk diirub jiitu na safar sëñ Bas buy tàmbali liggéey bi dana jiitu safar waaye fi lay nekk di fi réservoir délégation yi di fi réservoir ministres yi ak mboolem kilifa yi yi nga xayee ñoom la àndal liggéey bi ci màggal bi ñoom ñëpp ku ci ne fii lay ñëw di waxtaan ak ñoom di discuter ak ñoom ba lépp loo xëye war na koo tënk fii ci bâtiment bi lu ci ëpp fii la koy tënkee danaa fi amal sax benn CRD bi ñu daan mujj amal ci màggal Tuubaa mu jëm ci wàccaayu màggal gi fii lañ ko daan amale ba ci cérémonie yi am na ci yoo xam fii lañ koy amale bu dee ci wàllu daluwaay it màggal gi Cheikh Mouhamadul Bachir ku ne xam na ne bu xëysee ba bisu màggal gi ci guddi sax dana ñëw waaye nag dañ fiy dalal day joxe bâtiment bi ngir ñu gan ñi am fuñ dal muy koy da koy jébbal waa muqaddimatul xidma ñi nga xëy ñoo yore ak yi ñu jël bâtiment bi di ko jox gan ñi ñu nekk ci néegi ba màggal gi jàll noonu daal lañu nekk fii ci liggéey bi entretien bâtiment bi dañu koy bàyyi xel bu baax a baax ci jumtukaay bépp boo xam ni war nañ ko yeesal wala soppi ba batiment bi saa su ne muy gën a méngoog jamono. batiment bi am na entretien ndax euh, Serigne Mountakha dafay liggéeyloo Serigne Mame Thierno Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu Serigne Bassirou moo ànd ak ñun ci li ñuy wax entretien ci résidence bépp bu dee ci sama côté bâtiment moo ko yore su ma seetloo benn jafe-jafe duñ ko am ndax daf ñu booleeg ñoo xaye ñoo yor seen i liggéey am seen i métier buñ soxlaa tey ci wàllu salle de bain robinet salle de bain bu am problème kooku ngay woo directement au lieu ngay woo sëñ Thierno waaye kooku ngay woo mu ñëw changé ñu robinet bi bu dee ci côté climatiseur entretien yor nañ seen numéro nga xëy dañ koy woo mu ñëw defal ñu entretien ci climatiseur yi ba ci mbooleem loo xëy dañ koo soxla ku ci ne soxla rek am na numéro koo yor nañ ko nga xëy moom la ñu woo mu ñëw defal ñu entretien boobu su paree wax ak sëriñ bi loolu moo amuñ ci benn problème. salle bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci bâtiment bi li muy dalal ciy gan yenn saay mën nay takku moo tax ñu waajal fii climatisation boo xam ni mate na salle bi ak sonorisation boo xam ne foo mën mënti nekk li ñuy wax moo xam ci biir wala ci biti da ko mën a dégg. salle bi am na sonorisation boo xoolee bu sëriñ bi wax moom lañ koy taalal mu di ko utiliser wu sonorisation bi. dafa am ci biir am ci bitti soo génnee ci bitti am na ay baaful yoo xam dañ koy def foofu am ci biir am ci saal bu ndaw bi encore foo mën a nekk rek ci euh, te nga xayee waxtaan wi moo la yitteen da nga mën a foo mën a toog ci kër gi danga mën a dégg. xam nga saal bi day réservoir mbooloo mu baree bari moo tax ñu programme ci côté climatiseur armoire yi rek ñu ngi ñu ngi fi def cinq armoire ci kaw gi ñu def ci cinq split muy dix nga xay loolu boo ko doon xool ci ay sofo ci ñuy jàng ci wàllu climatiseur na doole ci saal bi. moo tax saal bi problème mu tàngaay moom du ci koor gi du ci màggal gi duñ ca amuñu ko benn jafe-jafe boo xëyee saal bi day tàng jamono bu nekk saal bi boo taalee climatiseur yi day dem ba day seddaay bi day ëpp sax ci mbooloo mi nga xëy ñoo fi nekk dañ koy dañ koy dañ koy wàññil. ci biir résidence Khadim Rasoul ci bët saalum gi bâtiment bu mag bi nga xam ne moom ma fa nekk moom lañ dëppee bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndax moom moo ko fi yoon moom Cheikh Abdoul ci boppam itam mu sasoo fi bâtiment boo xam ne étage la. fukki néeg ak juróom la. bâtiment bii moo gën a rëy ci bâtiment yi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa gi bii nag moom Serigne Abdou Lahad Mbacke Xaadim Rasuul yaa na ko yàlla fayal ci barkeb Sëriñ Tuubaa Serigne Abdou Lahad moo ko fi def. Euh, bâtiment bi bi ko Serigne Abdou Lahad def fukki néeg la ak juróom Serigne Abdou Lahad dafa wax ne juróom-ñaari néeg yii de maanaam. fasal naa ci murid yi ñu tëjal leen seen juróom-ñaari bunti sawar ubbi leen seen juróom-ñaari bunti àjjana ëllëg moom li Sëñ Blaat fasal murid yëpp keroog bi nga xam ne Sëñ Blaat mi ngi taxawal bâtiment bii architecte bi defaral ko plan bi jox ko ñu ne ko mbàkki plan bi dafa seer lool moom dañoo waroon a xool beneen boo xam ne muy gën a wayaf Sëñ Blaat ni leen bala génn woon a xam li ma liggéeyal Sëñ Tuubaa jaral ñu ne ma ciment bi ak yor a koy ak yor a koy liggéey bi door a sotti bu boobaa sama bopp laa njëkk a bi mu naal kër gi di naal bâtiment bii lu réer la ci fàggoon la ci fàgguloon murid yi te itam Serigne Touba nangul na ko ndax waxoon na ni kër Serigne Touba gii ma taxawal de bala ngeen a xam njariñam tey mu dem ba benn doom suñ Touba di sutut ci kaw suuf. bâtiment yooyu moo fi ak sàkk moo xam ne sàkkum soxna may lañ koy wax muy euh, mbaar mi ci weer yi nga xam ne euh, Serigne euh, Serigne Xabaan. moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo yore daare alxuraan yi ak lépp lu jëm ci njàng mi moo fay féete waxtu woo xam ne am na ay ndaje. bâtiment Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi R plus 1 la ànd ak fukki néeg ak juróom benn bu ci ne am na salle de bain ak lépp loo xam ne gan war na ko yittewoo. bâtiment bi fukki néeg ak juróom a fi nekk moo nekk ci bâtiment bi ak benn salle bu mag. mooy saalu vitre bii ngay jàkkaar lool néeg yi néeg boo ci dugg du jar ngay génn di dem ca ba ca des ndax liñ soxla ci néeg lépp am na fa am na toilette am na ay lii néeg bu nekk ñaaree lalañ ci nga lépp luy nekk ci am néeg daal mi ci boo boo duggee du soxla ngay génn di dem fenn. mboolem néeg yi nga xam ne ñoo nekkee ci bile bâtiment ay dalluwaay lañ ci mboolem gan yi nga xam ne dañu fiy ñëw rawatina ci jamonoy màggal. màggal gi kër gi bi ko sëñ Abdou Lahad def loolu la ci façon maanaam mooy gan ñi nga xam ne. ñooy kilifa diine yi nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ñëpp bu ndikkee am fu dal bu ndikkee nag ñoom gan ñi kenn ku ci nekk am na ci chambre boo xam ne booy ñëw invitation bi ngi indaale numéro chambre bi ngay dal da nekk nga xam ne yow soo ñëwee rek automatiquement da ngay daal di jawwale ci chambre bi ngay dal soo dikkee itam lépp fan lay fekk ba màggal gi jeex waaw néeg bu ci nekk tam kéemil alxuraan nga fa tege boo xam ne soo soxlaa jàng alxuraan du jar nga koy laaj kenn néeg bu ci nekk loolaan waaw sëriñ Modou Badara jóob noonu it la ko fi sëriñ Abdou Lahad kee santé bâtiment mu liggéey ko fi muy bâtiment bi nga xam ne mu ngi nekkee ci bët saalum kaas bu mag bi moom Cheikh Abdou Lahad woo itam sëñ Modou Badara Diop sant ko bâtiment boo xam ne moom itam euh, juróom ñeenti néeg la akub saal ñu def fa jàkka ndax li tax jàkka ji itam moo di Serigne Mourtada du Cheikh al Khadim da dal ci bâtiment boobu te moom ñaare fu mu dal ci jàkka lay jullee euh, ca lay fatoo itam loolu moo waraloon bâtiment boobu muy bâtiment Serigne Modou Ba dara ñu def fa jàkka وكن مجمليا من فضائل وزكي لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثلها ولياب حذاقة ونورا وبسراد يسر المرورا وهب لي ذكر بسفر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تدل يا مالكي دليلي sëriñ Mahmadan Jobbe nekkoon xalifa njabootug sëriñ Masamba Mbàkke gi moom it sëriñ Abdoulahan Mbàkke moo ko santoon batiment bi mu liggéeyoon ko ba mu àgg ci jamono mu nekk batiment boo xam ne mi ngi féetee soowu kaas bu mag bi nga xam ne moo nekkee ci digg kër gi. waaye itam sëriñ Mahmadan moom sëriñ ma sàmba ñu gën koo xam ci sëriñ Mahmadan Jobbe sant ko batiment boo xam ne juróom-ñeenti néeg la ak saal. bâtiment sëriñ Mahmadan Jobbe bi jot nañ ko yeesalaat ba yokk ci benn étage. sëriñ Modou Ablaye Fall ndax moom lañ joxoon ndigal li. am na itam restaurant boo xam ne euh, benn niveau la woon waaye bi nga xamee ne ñu ngi koy yeesalaat yeesalaat bu mujj muy bâtiment sëñ Mahamadan bi bi nga xamee ne sëñ bi daa santoon waa kër sëriñ Massamba ab liggéey fee ca kër sëñ Touba gi ci Darou Manane te te ci jamono jooju liggéey boobu noppeegut te waa kër sëñ ma Mahamadan yi nekkoon ca mu gisit ne euh, war nañoo yeesal fii. muy réfectoire bi muy muy euh, restauration bi restaurant bi ci la woo euh, ci la wax sant Serigne euh, Modou Ablaye Fall Ndar mu. yeesal bâtiment bi nga xam ne moom la fi waa kër Serigne Massamba defoon ci njiitu Serigne Mahamadan ak bi ñoom nag bi ñu koy yeesal yokk nañ ci beneen niveau mooy dañ ci dolli beneen étage maanaam euh, rez-de-chaussée rek la woon waaye dolli nañ ci beneen étage ca kaw muy euh, euh, ñaari lekkukaay yoo xam ne ñaari jëfandikukaay yoo xam ne gan ñi nga xam ne ñooy ñëw ci kër gi ñu ci ci barab yooyu la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy jëfandikoo. وزيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاد مذنب ومن فعل عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اقتدى وحجة على مخالف غدا ومدلبا لطاعة الرحيم bâtiment bi moom la sëriñ Abdoul Ahad Mbacké santoon sëriñ Modou Rokhaya bu Daaru Salaam muy batiment bi nga xam ne fii lay xalif général des Mourides di nekk su ñëwee fii ci résidence Khadimou Rassoul. sëñ Abdou Lahat moo ko moo ko moo ko moo ko santoon ngir mu liggéey ko ci biir loolu batiment bi di di dox di dem mbooleem ko fi nekk xalif général des Mourides <coughs> daan nga fi ñëw daan fi dajak ak mba taalibe sëñ Tuubaa yi muy daayira yi ci jamonoy sëriñ Saliou. ba ci sëñ Alaaji ci sëriñ Sidil Muxtaar Mbàkke mi fi nekkoon di ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci jamonoy sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke lañu ko yeesalaat mu santoon ko sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Modou Rokhaya mu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib maam Cheikh Anta ku ko xam-xam ni ak taalibe moom da ko yor ba mot sëkk teg ci mu doon am murid saaleex ba pare teg ci mu doon nit koo xamante si ni suñu borom da koo may da koo may am xel ba pare mu am ay xalaat nga xam ne bâtiment bi boo xoolee mboolem ni liggéey ci bâtiment bi yëpp moom moo moo ko xalaatal boppam ndax bâtiment bi boo xoolee <clears throat> boo xoolee jëmmi bâtiment bi rek dañ xam ne bâtiment bi melul woon nii Euh, yokk na yaatuwaay bi yokkul na guddaay bi ndax guddaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 16 mètres 50 yaatuwaay bi boo xoolee mi ngi toll ci 8 mètres 50 kon xam nga tollul woon noonu euh, auteuru dal bi it daf ko gën a yokkaat ba mu gën a siggi ndax boo xoolee boo duggee ci biir bërëb bi di nga xam ni euh, liggéey na fi liggéey bu am solo sëñ Sidi Mokhtar ci mbaaxam ci oyofam ak bëgg gi bëgg sëñ Cheikh ak yërëm gi ko yërëmoon mu taxoon sax moom moo taxoon sax daf ko waxoon sax ne ko danga koy peintural kii ko na xawoon koo kii rek tuuti waaye ndeysaan sëñ Cheikh ak bëggam ak laabir ak xër gi xër ci sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa war nañ koo war nañ koo mën a defal loo xam ne ku fi dugg da xam ne lii sëñ Tuubaa yelloo na lu ëpp lii waaw bi mu ko ko waxee sëñ bi sëñ bi bëgg ci lool ndeysaan ñaanal ko ko suñ borom dogal it sëñ bi boole ma ak moom ma ànd ak moom liggéey bi suñ borom dogal ñu liggéey ko ba liggéey bi mucc ay ba mel nii keroog bi nga xamante si nii eh, dem na bay jébbal sëñ bi liggéey bi sëñ Sidi Moxtaar bi mu duggee fii ci biir saal bi dafa mujjoon yéemu sax ci suñ borom ndax bi mu xoolaatee liggéey bi ni mu meloon ak ni mu ko bàyyee woon ak bi mu fi duggaatee ak ni mu melaat liggéey bi daf ko yéem ba keroog bi mu duggee ci biir bi mu toogee rek la mu njëkk a def mooy def nii Fallou Galass la wal ma sëñ Cheikh Anta Mbacke keroog bi mu njëkkee toog la mu njëkk a def mooy dafa téen ci kaw xool xam ne dal bi kat yokkaat nañ ko keroog ndeysaan mi ngi naan ah man de sëñ Cheikh mii day wax dëgg yàlla yéem na ma na ma lool de wax dëgg yàlla yéem na ma lool daal sëñ Fallou wol ma sëñ sëñ Fallou daal di ci lañu wooyee sëñ Cheikh Anta ne ko ah sëñ bi kat bëgg na ci liggéey bi lool te keroog bi mu ñëwaatee ci sëñ bi sax sëñ bi da koo gën a da koo gën a feddilewaat loolu gën koo waxaat na ko liggéey bi da wax dëgg yàlla am pësteef gi mu am rek ak ni ni mu mel nii rek sama xol la cee sedd waaw sëñ Fallou yaakaar naa ni eh, boo xoolee bërëb bi ni mu mel nii daan nga fi dugg bu njëkk ba boo xoolee ni mu mel nii da nga xam ne wuute na ak bu njëkk bi waaw yaakaar naa ni xam naa nag danga boo duggee ci biir da nga xam liggéey bi ni mu mel yëpp ndax boo xoolee sëñ bi sax wutal nañ ko fa wutal nañ ko fa néeg boo xam si néegu boppam la ndax jamono yooyu boo xoolee daanaka aw waajtaay la amoon rek ak néeg su néeg su tuuti waaye ci biir liggéey bi ci xalaatu sëñ Cheikh Euh, defal na fa beneen bërëb boo xam ne si def na fa néeg bu yaatu boo xam ne si ne sëñ bi dina fa dina fa man a nekk boo xam ne wuute na ak saal bi boo xam ne wuute na ak saal bi ndax booba rek jamono yooyu boo xoolee saal bi rek moo fi nekkoon ci saal saal bu saal boobu moo fi nekkoon ci jamonoy sëñ Sidi Moxtaar sax ci saal bi sax ci la daan toog waaye nag ci biir liggéey bi sëñ bi liggéeyaat na fi beneen li beneen néeg boo xam ne amaan na beneen néeg buñ dolliwaat ci biir gën koo yaatalaat ba nga xam ne seen kilifa gi bu ñëwee dina mën a dugg foofu ci néeg bi man fee def li muy def waaw euh, boo xoolee garage bii nga xamante si ni garage bii nekku fi woon ndax sëñ bi bu mu saan dugg si fii ci biir danaan dugg rek bu mu saan ñëw fii bunt bii ma jàkkaar lool ci la daan jaar booba waaye talibe sëñ Tuubaa bëgg giñ bëggoon bëggoon bëgg giñ bëggoon mboolem ki fi nekk ki fi nekk sëñ Tuubaa nga xam ne ndeysaan bu sëñ Sidi Moxtaar mu saan ñëw euh, taalibe yi buñ mu saan buñ ne sëñ baa ngi ñëw rek ñoom ñëpp dañ daan génn bâtiment bi ba pare bàyyi ba sëñ bi jàll ba pare ñoom ñëpp ñu door a dugaat ñu door a duggaat ci biir waaye nag ci biir loolu bi ñu yeesalaatee bi ñu yeesataa yeesalaatee liggéey bi suñu borom ci xalaatu sëñ Cheikh Anta mu ne kon sëñ bi war na sa ko war ko fee mën a liggéeyal benn garage boo xamante si nii otom dina dugg ba ci biir te dina mën a wàcc jaar ci bunt boppam dugg ba ci biir saal bi te du jot ak mbooloo mi dara. bâtiment bi boo xoolee ñaari salle ñaari salle la ndax euh, am na salle bu mag mooy salle bi ñu nekk nii ak beneen salle bu ndaw waaw ndax fii ñu toog nii mooy fi lay daari di toog ndax sëñ bi ñëwee. fii ñu taxaw nii fii lay toog jàkkaarloog mbooloom mbooloom sëñ Tuubaa mi muy daayira yi waaw bu dee ci biir nag euh, foofa dañ ko faa def ngir bu fa nekkee kilifa yi ak yenn délégation yi ak yenn kilifa yi bu ñu ñëwee mu mën a génn ci néegu boppam mën a woo kilifa yi foofa mën faa toog ak ñoom ngir waxtaan ak ñoom waaw loolu ñaari saal la boo xoolee am na benn saal bu ndaw bu ne ci biir am na benn euh, saal bu mag bii amaan na beneen néeg néeg néeg boo xam ne néegu boppam la événement yu bari yuy xew ci yoonu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des mourides fii la koy dundalee ci batiment bi ba ci màggal Tuubaa yi ak yenn ci ziyaaru daayira yi ak délégation yi gis nga yu bari xew-xew yu bari yoo xamante se ne mi ngi xew ci biir dëkk bi yoo xam se ne day ñëw di ko dundal fii ci ci di ko dundal fii ci kër gi ndax mboolem màggal yi fi jaar yëpp muy Kazu Rajab Daaru Xudoos ak lu mën a doon day day ñëw fii dunduloo ko ak isbu tarxiya euh, ñu bokk fi nekk fii ci bi nga xam ne diiran guddi gi yëpp dafay daal di nekk fii ci saal màggal ak ren gi fi la koy dundale incha allah ñett fan yi màggal gi yëpp fi a koy fi la koy def fii ci biir kër mag moom am na bërëb buñ naan pale Djily mbay muy palais boo xam ne El Hadji mbay Mbaye moom moo ko liggéeyoon ci ndigalul Serigne Abdoul Ahad Mbacké mu waxoon El Hadji mbay Mbaye ne ko gannaaw danga am pale dama bëggoon nga defaral ma plan boo xam ne day méngoog pale boo xam ne njiitu réew mu fi ñëw wala kilifa gu jóge bitim réew te dara jaam mate ko su fi ñëwee ñu dalal ko fa allah jili jël engagement ne ko ko waxuma la defar plan bi waaye bâtiment bi maa koy tabax muy palais bële. palais bi mi ngi féetee ci bët gànnaaru kër gi. ci espace bu yaatu ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib président yi ak gan yi nga xam ni seen daraja àgg na ci. bu ñu fi ñëwee ci fii ci pale bi lañ leen di dalal. mu doon bâtiment boo xam ne tamit euh, dañ dem 83 lañ ko fi defoon ci jamono yi Serigne Abdoul Ahad El Hadj Djily Mbaye nag la waxoon ne moo ko tabax waaw 83 muy bâtiment boo xam ne mbooleem njiitu réew yi képp ku fi jëm si tuubaa rek sëriñ bi foofu la def muy sa wàccuwaay boo xam ne fi lañ lay dal ba sa waxtu dellu jot nga dellu mu doon bâtiment boo xam ne tamit méngoon na ak wàccuwaayu njiitu réew ndax lépp loo xam ne. Euh, lu muy aajo wala am na ci biir bâtiment bi euh, muy chambre ak salon ak euh, dressing ak salle de bain am na salle à am na cuisine am na tamit yeneen chambre yoo xam ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak moom euh, mën nañ fa dallu am na tamit ñaari salle yoo xam ne tamit am na ci biir muy benn grande salle boo xam ne foofu mooy euh, salle de salle d'attente daal lañ koy wax ak beneen salle boo xam ne tamit daanaka li ñu naan salon gouverneur lañ koy wax loolu lépp ci biir bâtiment bi la nekk mu doon bâtiment yaatu boo xam ne tamit am na su sol am na su souterrain boo xam ne tamit maanaam ci suuf la nekk boo xam ne am na ñaari néeg am na ay magasin yoo xam ne tamit mbooleen bagage yoo xam ne jëmoon na ci wàllu màggal bi li ci ëpp foofu lañ ko doon denc mu doon espace bu yaatu boo xam ne tamit ni bâtiment bi rek euh, cour bi tamit dañ ko defal fii genre euh, bassin boo xam ne jet dañ koy aménager comme ça muy génne ndox mi maanaam di <coughs> defal ko ay décor yoo xam ne daal maanaam euh, taaru lool def ci ay lampes yoo xam ne ay jeux de lumière lay doon mu nekk côté gauche bi ak côté droite bi aménagé nañ ko donc ay fleurs yoo xam ne chaque année dañ koy yeesalaat di ko toppatoo même biir bâtiment bi tamit at mu jot demee ci comme waajtaayu màggal dañ koy yeesalaat ci anam yëpp <clears throat> maanaam ci changer meuble yi fi nekkoon changer climatiseur yi changer lépp loo xam ne rek euh, mi ngi ci biir ci loo xam ne daanaka euh, danañ ko yeesal ngir mu wàcc wàccuwaayu gan gi nga xam ne daanaka moom la fi sëriñ bi di teeru danañ changer salon yi <clears throat> danañ changer danañ changer lal yi danañ changer clim yi danañ yokk décor bi tamit ba nga xam ne daanaka lépp loo xam ne tamit luy taaral la danañ ko ci dolli yokk ko ci waaw danañ ko pentiiraat biir ak biti fu ci aajo karalewaat tamit dañ koy dindi karalewaat ko mu doon karo yoo xam ne tamit dana méngoog mm, <coughs> wàccaay yu daal wax dëgg yàlla ci lañ nekk nii daanaka ci sànce lañ nekk nii ngir ñuy pentiir ñu ngi pentiir ñuy karole ñoom ñoom ñi ngi karole ba lépp loo xam ne daal fi mu nekk nii daanaka luy taaral bâtiment bi la luy yokk ab taar fi mu nekk nii moom daanaka ñëpp a ngi ci biir ci liggéey bi moom président moom balaa ñëw day fekk lépp lu ci war a dem moom dana fekk moom ñu noppi ci ba nga xam ne daanaka moom euh, day ñëw rek daanañ ko dugg ndax sëñ bi moom euh, du kenn ci lenn moom balaa ñëw lépp loo xam ne tey méngoo naag wàccuwaay boo xam ne daanaka luy taaral moom danañ ko fi defal ba nga xam ne daanaka moom su ñëwee mën naa ne day dugg rek toog sant Cheikh Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te wér ndax loolu la ñu waroon a njëkkee waaw di ñaanal sunu jëmm ju baax ji nga xam ne tamit moom la sëriñ bi dénkoon kër gi nga xam ne daanaka suñu dikk fii ci biir kër gi <coughs> ci moom la sabab si jaar mi sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Sayid dafa ñaanal suñu borom dolli ay leeram ndax yar nañu ci toppatoo kër gi ba def nañ ko suñu yitte def nañ ko suñu bëgg-bëgg ba lépp loo xam ne tey fi nekk nii yitte laaj na ko rek fas nañ ko yéenee jox kër gi kaas bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci kër Serigne Touba gi te nekkee ci diggu kër gi Serigne Abdou Lahad Mbacké moom moo ko fi liggéeyoon. mu daan fi dalal ay gan am na it ay cérémonie officielle màggal tubaab yu bari yoo xam ne ci kaas bi la ko Serigne Abdou Lahad Mbacké amalee. Euh, am na itam euh, case bu fi nekk boo xam ne sëñ Abdoulaye moo ko fi defoon case boobu bi ko sëñ Abdoulaye dafit dafa ne quatre-vingt-dix millions lay lay jar mooy case bi ci sunu ñu jàkkaar lool moom itam euh, sëñ laat moo ko fi defoon muy case boo xam ne fi la daan defi cérémonie màggal bu mujj gi màggalu 18 safar gi fi la daan recevoir kilifa yi bu masaan ñëw it ci case boobu lay nekk moom sëñ Abdoulaye ba ci jamono yi sëñ Saliou ba ci jamono yi sëñ Abdou Khadir euh, kon kaas bi mooy kaas bi ngeen di gis euh, kon noonu la kër gi noonu la kër gi tëddee. mboolem bâtiment yi nga xam ne ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi ba ñu noppee ci jamono yeesalaat gi nga xam ne moom lañ njëkk a def ci kër Serigne Touba gi te yeesal kër gi yëpp Serigne Saliou Mbacké mi ngi ko santoon am di Khady Fall. Euh, Baye Fall yi itam ndogu yi nga xam ne moom la ñu indi xasida daal de murit yi ci ëpp. fii lañ koy indi eh, ci jamonoy Saliou sëñ itam kër gi santoon na sëñ Amdi Xadi ngir mu yeesal ko lépp eh, ba yeesal biñ ko njëkk a yeesal bu ko sëñ eh, defaree ba noppi sant ko jëwriñ jooju ba kenn ku nekk def li nga ci war a def ba noppi yeesal bi ñu ko njëkk yeesal ci jamono sëñ Saliou sëñ Amdi Xadi Faal lañ ko santoon moom rek mu yeesal kër gi yëpp. mboolem bâtiment yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kër Serigne Touba gi benn bu ci nekk am na ci loxo yuñ ko teg. ñu yor ko di ko saytu rawatina entretien bi waaye kër gi yëpp ñu ngi ko dénk Serigne Bassirou Niane mii mooy bâtiment yi fi nekk bu ci ne am na ñu ngi ko teg ci seen loxo ñooñu itam ñoo yore responsabilité batiment ba la jëm ca wàllu setal ga nag dafa am ay daayira yoo xam ne euh, ñoo fi nekk daayira yoo xam ne daayira yu seetal lañ euh, mooy bu dee alterné am na daayira bu fi ñëw bu dee euh, talaata am na ñoo xam ne sëñ maam na mi nga xam ne moom sëñ sëñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moo yore wàllu entretien kër yi sëñ Touba yi ak sëñ bi dénk ko itam liggéeyu université bi jël na benn société boo xam ne euh, wàllu nettoyage la ñuy def euh, lu jëm ci wàllu talaataak ñoom bis yëpp dinañ fi di ñëw waaye téewut daayira yi ma wax muy alterné ak alxames ak ajjuma ak dibéer bu ci ne am na daayira yoo xam ne dañuy ñëw fii di ko setal kër Serigne Touba gi ñu naan résidence Khadimou Rassoul ci kilifteefu xalif général de Mourides lay nekk ni nga xam ne nag noonu la ko waajuram ya ak magam yu baax ya daan defee cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général de Mourides dundalaat na bu baax a baax kër mag moom. waaw maanaam sëñ bi kër Serigne Touba gi ci xol bi la nekk waaw kër Serigne Touba gi ci xolam la nekk ndax fi mu bu dee jug bu dee jugee këram sax di ñëw sax daf naan leen kaay leen dem ci bërëbu bërëbu liggéeyukaay bi kaay leen ñu dem kaay ñu dem ci bërëbu liggéeyukaay bi kon kër Sëñ gi ci xol bi la ko def moom da ko da ko da koo da koo bëgg lool te tey tamit nag da koo da da koy dundal waaw dafa dafa dundalaat dafa dundalaat kër gi ba pare dundalaat penc bi waaw ndax. sëñ bi waxuma dara sax waaye bu nekkee ci kër gi rek ñi nga xam ne dañoo ne ci biti sax di yëngu di yëngu leneen loo xam xamante ni sax day jëm ci doomu aadama ñoom dañ koy yëg. mboolem événement yu mag yi nga xam ne daal yoon wi da koy am Cheikh mun Mountakha fii la koy dundalee eh, ci kër gi. kon nag ñi ngi gën a sant Serigne Touba baax di sant Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne moo nu fàggul lii ñun murid yi di ñaanal nag sëñ Mountakha Mbacké mii nga xam ne moo fi sëñ Touba. mu yàgg fi loolu te wér te moom doxiinu mag ñi rek lay roy sëñ Muntaxa doxiinu mag ñi rek moo yitteem amul benn yitte bu dul liggéeyal sëñ Tuubaa amul benn yitte bu dul dëgëral pas-pas yi murid yi ci sëriñ bi ndax xam ne loolu mooy koom ëdd nag ak moom alaxira kon nag ñi ngi sant Serigne Touba bu baax di sant Cheikh Mamadou Mountakha. Serigne Touba nag bëri na kër lool fii ci Touba ci biir réew mi ak ca bitim réew waaye bii ñu naan résidence Xaadim Rasul moo ci gën a ràññeeku. lépp nag di gis-gis bu sori boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Xaadimu Rasuul nekkoon troisième xalif général des Mourides amoon na ko ndax kër gi bëri na lu muy jariñ yoonu Mouride. alimtu yaqinan na mawlaaya kaana ni wa anna al-muxaffa man alaaniya yarda zilaaliya safa mujiirun musassis li xayri dan min xayr شددت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتم من